Jean-Baptiste Tine démb la daal di jot lenge ci kii di Mouhamadou Makhtar Cissé bokk na ci kàddu yi mu yëkkati ci biir yéenekaay bi di réew mi quotidien mooy police daal di xoolaat taxawaay wi fexe ba dëppoog li nga xamante ne moom mooy ak ak yeleefu askan wi askan wi war a xaar jëf yu njëkk yi nga xamante ne mu ngi tukkee ci gouvernement bu bees bi nga xamante ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay woolu na leen ci ndajeem bu njëkk conseil des ministre tey jii ci talaata lay doon vox populi duñu xamal ni boobee ndaje conseil des ministres bu njëkk bu gouvernement Bassirou Diomaye Faye lekk gi la ci taamu mu mel ni dugg la ci Sénégal ndax suñu naataango yi ñu ngi ñuy fàttali Abdou Diouf taamoon na tamit bisub talaata ngir di ci amal ndajeb conseil des ministres Abdoulaye Wade moom bisub alxamis la taamu woon moo ne de Macky Sall àllarba la ko doon amal li am ba am mooy ndaje boobee nga xamante ne tey jii la ñu koy amal ca palais de la république Vox Populi mu ngay fàttali nii mooy doon ndajeb conseil de ministre bu njëkk ngir président Bassirou Diomaye Faye ci boppam waaye tamit premier ministre am di Ousmane Sonko ba ci ay jëwriñam lu kii di Moustapha Guirassi mi yor wàllub éducation ak Mary Teuw Niane directeur de cabinet naka noone Oumar Samba Ba nga xamante ne yàgg nañu teewe yi la xeetub ndaje laata ndaje conseil des ministres bi 24 heures dañu xamal ni Ousmane Sonko moom jot na dossier yi ba noppi ci loxol maître Sidiki Kaba mi mu wutu démb ci bopp primature ñaari premier ministre yooye nga xamante ne ku ci nekk gërëm nga ci sa morom gërëmante gi tamit ci ministère de l'intérieur foofee nga xamante ne général Jean-Baptiste Tine jot na la ngay te sonj na ñi nga xamante ni takk der yi ci taxawaay bu bees bu muy xaar ci ñoom gannaaw entrée en fonction gouvernement bu bees bi mën nañoo xaar lu nekk ci bopp mairie bu ndakaaru li ko waral la tribune yéenekaay moo ñuy fàttali ni kii di maire ba Barthélémy Dias moom fi mu toll mën nañ ko fa jëlee ci waxtu wu nekk ndax yéenekaay bi di dikkaat na ci dogal bi nga xamante ne moo tukkee ci procès en appel ñeel mbirub Ndiaga Diouf mu nekk mbir boo xamante ne doomu Jean Paul Dias bi dina wëy di dund moom fii ak weerub septembre nguur gu bees gi dina wëy moo tax Walf Quotidien dikkaat ci li mu jàppee ni ab jafe-jafe dëgg la ngir pastefien yi ndax ni assemblée nationale bindoo jamono ji enquête yéene kay di ko ci feelu gis ni weesu na sax jafe-jafe waaye ab défi bu rëy la ngir régime bu bees bi donte am na ndam lu yaa ci département yu mag yi waaye lu muy fekk moom ci assemblée nationale xeeñul neex yéenekaay bi defaat tamit ab jàngat ci revanche bi mu jàpp ni ñiy def vote utile jël nañ ko ci ku mel ni xalifa Babacar Sall Serigne Mboup Malick Gakou naka de Déthié Fall ci li tukkee ci élection présidentielle bi élection présidentielle bi tamit lu muy wane bokk na ci yenn ci ay gox yi nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar ba tey moo ko téye yéenekaay bi di laaj loole ba xam ba fan lay jëm ñu jëm ndax enquête moo ngi ñuy xamal ni rupture bi nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ak seeni ñooñ lu ñuy woote moo di ni duñu xajal benn yoon ñuy wut fu ñu daw làqu ji ñi doon xaar soxna yu bëri ci gouvernement bu Bassirou Diomaye fay tàmbale nañoo yëglu bokk na ci caucus des femmes bi nga xamante ne njiit la moo ngay mettitlu lim bu néew bi nga xamante ne kon soxna yi nekkee nañ ko ci gouvernement bi ndax nee na sax gulët ñu daal di am téeméer boo jël daanaka fukk ak ñetti képp ni ay soxna yu nekk ci gouvernement bi Fatou Sow Sarr ci pexe mooy ticket présidentiel bi ñu doon yëglu ñu fexe ba ki nga xamante ne mooy nekk vice présidente ci Sénégal nekk soxna jamono jooje kii di Marie Angélique Savané moom ab pétition la daal di sumb ngir ñu daal di ŋàññ tànneef yi nga xamante ne gouvernement bu bees bi daal di koy def gis-gis bi mel ni wute na lool ak li yor-yor bi di jàngat yéenekaay bi dikkat na ci ñeenti soxna yi nga xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bu Ousmane Sonko bi ku ci mel ni Yacine Fall di ab diplomate bi ñu ràññee lool ak lépp lu jëm ci liituke ci géej gi naka noone Maimouna Dieye ak tamit Khady Diène Gueye mi nga xamante ne daanaka ñetti département lañu ñu lëkkale daal di koy dénk yéenekaay bi jàpp ni ab équipe soxna la bi nga xamante ne kenn mënuta laam-laame seen mënin lu ñuy laam-laame kay jamono ji mu ngi ci biir yéenekaay bi di Sud Quotidien mooy lu ñu war a jëlee fii Sénat indi fii Séni coppite googee nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye yëgle ne ko ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wi daal ñu ngi ciy indi ay jàngat bokk na ci Fall Jojo mi nga xamante ne nee na li gën kay mooy ñu daal di samp ab haute autorité électorale wala sax ab délégation générale aux élections Frédéric Ndekki di ab expert électoral di samp ab laaj ndaxam seeni dëgg-dëgg mooy solution bu baax bi li am ba am Jibril Ñing jàpp na ni jëlee fi Sénat indi fi seeni loole ab xalaat la bi nga xamante ne mu ngi tukkee ci lu ñu dund ci élection yi weesu nga xamante ne taxawaayub kuréel googee ñëpp a ko doon ŋàññ ana lan moo war a doon taxawaayub l'info yéene kaay gis ni ñaari mbir moo am moo di ni jëwriñ ju njëkk ja woon mën na trahir mission wa illa mu daal di dëggal boppam ni kon mooy njiital opposition bu bees bi suñu naataango yi dañ ci jàngat ni 35 pour cent yi nga xamante ne am na ko ci présidentielle bi tax na ba taxawaayub amadu Ba moom ci opposition bi kenn waratu ko mën a laam-laamee rawatina bu fekkante ne statu chef de l'opposition bi gouvernement Bassirou Diomaye fay joxe nañ ko ba mu mat sëkk ndax am na li ci président Macky Sall defoon jaarale ko ci ab référendum président Macky Sall ci xët bu njëkk l'observateur yéenekaay groupe future Média bi di def ab xayma ci li nga xamante ne jot na ko liggéey ci bopp réew mi bu fekkante ne nag ci wàllu jumtukaay muy infrastructure wane na ci maninam waaye am na fi nga xamante ne dafa mel ni ku fa tëlee muy li ñu duppee bilan immatériel moo tax l'Obs di dikk ci njeextal bi nga xamante ne mujj naa tiis lool ci kii di Macky Sall njeextalu koor gi boo mootul benn lay doon la tribune yéenekaay dañu xam ne ni gannaaw dogal bi nga xamante ne coordination des musulmans du Sénégal jël nañ ko fego kuréel bi astronomie daa di wax mën nañoo njort ni korite gren ji daal ñëpp dañ koy bokk julli ci àllarba gi noone tamit la ko Sud Quotidien gisee l'observateur lëmbëj na ba gis li nga xamante ne moo tukkee ci saisine de drogue bi ñu amaloon ci port bu Ndakaaru lu toll ci ñetti tonnes de cocaïne bi nga xamante ne ki nekkoon ci bopp ba di borom gaal ga ci boppam teg nañ ko loxo ba tey ji la war a janoo ak procureur drogue an ci lu toll ci ñaar téeméer ak ñeent fukki milliards ci suñu koppar koppar bu takkuy tamit la direction générale des impôts et domaines war a delloo ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Afrique pesage libération xayma ko ci lu jege benn milliard lépp mu aju ci wàllu TVA yi nga xamante ne dañoo jàpp ni de tegu ko woon ci yoon ñu teg coowal TVA wax ci tàggat yaram ak yéenekaay bi di record mii di kat ci Ligue des champions bi nga xamante ne quart de finale aller yi tey ji lay door ak jongante yu métti yi nga xamante ne war nañ ko xaar niki tey ji bokk na ci Real de Madrid mi war a dalal Manchester City ca Bernabeu waaye tamit Arsenal mi nekk ci forme bu mucc ayib mi nga xamante ne dina laale ak Bayern de Munich bu Bouna Sarr nekkee ci jafe-jafe jamono ji rawatina ci championnat bi di Bundesliga Rewmi Sport di kat ci taxawaayub Génération Foot mel ni ku yeewu ci championnat bi